li ko waral mooy suñu ay papa ñoo jaxasoo woon seen kër mooy suñu kër suñu kër mooy seen kër xaadim mi fi toog tey ñu ko neex lay ñëwee di seet suma yaay ñoom ñaar ñu mel melokaan ba nga xamante ni yaay ak doom la nekk lépp mbokk la dëkkandoo bu yàgg maam Penda moom ku nekk xam na digganteem ak Seydou Sow je loolu day am lu muy wane ci biir synergie bi nga xamante ni am nañ ko ci suñu ànd mais li gën a am solo ci àdduna mooy am ay idée dérouler le fait de réfléchir et de concevoir je me dis que ni c'est un peu facile ku ne mon nga ko xalaat perspectives mais le fait que le dérouler ko c'est quelque chose parce que ambition boobu yombul kon déjà réussi là. mais li ci est plus gën neex le fait que nous commençons ci koñ parce que développement jàpp naa ne borom xam-xam dañuy wax ça doit commencer à la base kon boo nee sama gox laay commencer daal di un pour tous di ko lancer ci benn bis am un ko jël si ay ndaw bëgg leen wane loolu dafa am la nga xamante ni dafa am solo tey bis bii ngeen def je ma dis que ne état ci boppam waroon na ci dugal loxoom accompagner leen ci fànn yu bëri état nag boo ko tudd rek dañuy foog ne ni koppar ngay laaj waaye ci fànn yu bëree bëree bëri état war na leen ci accompagner parce que déjà li ñuy wax la création d' tey ji nii yéen a ngi xalaatal état yéen a ngi ciy dimbale état ci benn orientation mm-hmm. orientation bi mooy nga ne da ngay jël Seydou Sow def ko pare Seydou Sow bi nga xam ne nii mosul génn Diourbel Seydou Sow bi nga xamante ni pur produit Diourbel la rawatina fii ci Thierno Kandji Grand Diourbel am kat natt bu dal ci kawam mu ngi ko tuddee natt parce que siiw bi jaam yi borom dèjà natt la ah ñuy liggéey ci wàll entrepreneuriat di def lépp li nga xamante ni mu ngi jëm ci agro business ñu nekk ci di ci yëngu ba tey jii nii jàpp nañ ni Diourbel bi ñu ko waree teewal ci conseil présidentiel de la jeunesse man lañu tànn ma teewal Diourbel loolu kon yaakaar naa ndam la pour man mais ndam la pour waa koñ bi yëpp kon maam lu ma traverse rek war naa ci mun a sant yàlla mais war naa ci mun a wane ni àdduna fi nga toog sono les maigres moyens jéemu doo mun def dara ci kaw jéem boobu nag la suñu borom def ci barke ah, ba tey jii nii lépp la nga xamante ni ci wàllu volaille la mu ciy def liggéey bu nga xamante ni Diourbel jàpp naa ni du ma ne ni ko jéggaani waaye buñ koy jéggaani lu tuuti te sénégal nag buñ bëggee wax autosuffisance alimentaire femme yi dawaat liggéey bi muy ci mbéy mi ak appel di ci woo ya état mu ñëw taxaw leen ci parce que xam nañ ni fi ngeen jëm ak ni ngeen tëggee seen projet ak borom xam-xam yi ci àndal pour le futur yéen war ngeen mën nekk benn palier pour l' du sénégal loolu moo vraiment may magnifier ngeen def te di leen wax ni la bu ñu di ngeen xam ñun si lépp lu ci nekk nañ ci ak waaye dinañ leen ci wax tuuti rek ci suñu jaar-jaar bi nga xamante ni ñu ngi démarré élevage poulet de chair en 2005 ak 70 poulet de chair ñu amoon ko ci période chair bi waajur comme que en fait moom éleveur la woon mu génne benn kaafam aal ñu ko ñu xëy le matin 35 yëpp dee. mais sama première expérience ci de chair may dem di dem di dem di dem ba léegi capacité bi may def xajatul ci kër loolu moo ma génne kër ñu demee suma benn xarit bi nga xamante ni suma grand la ma koy nuyu de passage Modou xaaj këram ne ma liggéey liggéey xaaju parce que amoon aussi ancien moyen pour jëndi mu jox moom wàcce këram ma nekk fa di fa def pondeuse de 2012 à am benn box bu ndaw 400 mètres carrés ne fa tey dara fan laa ko def 2018 la am fenn ma nekk ak noonu laa ko jël toppee parce que ni may liggéey dama nanga woon xiif nanga woon mar bañ a solu bañ ko laal mu nekk benn fond de déroulement bi nga xamante ni damaa takk suma biir ak suma biiru njaboot bañ ko laal ngir ma a yegg ci asset niveau loolu aussi dafa am solo ci liggéey bi li ngay liggéey pour mu jëriñ la faa ngay xam lan la nu mu toll fi mu démarré luy yéeg luy wàcc yooyu yëpp yaakaar naa bu ñu toogee dañ am temps wu gën wax su ko defee ndaw ñi xam ne seen maigre moyen war nañ ci mën a def dara mhm. loolu moo nekkoon li ma ci wax tuuti ci parcours bi rek mais di leen gën a wax ni Khadim merci encore une fois mhm. Thierno Kandji dafa soxla lii Grand Diourbel dafa soxla nit parce que dajale ay nit rek dèjà mais yow am nga ko te yan façon dañ ko dajale nit ñi gën a jafe dajale nga boole tey ñëpp bokk ndey bokk bàyyi te ku gis groupe bi ni muy doxee vraiment ñu xam ne yow yàlla la baaxal te yombul kon nag ñu ngi sa ginnaaw dinañ la accompagner dinañ la jàppale ba li nga xamante ni mooy ndam lu ciy seenu ñu ànd ko wasalaam